waa Ousmane nowel Dieng yi la waa Ousmane Noël ñoo jàpp Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa dóor ko ba muy voté ji ngir lan Ousmane Sonko la ñu jàpp ko dem dóor ko ñu jàpp ko dem dóor ko après ñu indi Cheikh hôpital ñoo ngi nii ñu indi Cheikh hôpital ñu ñëw di ko dóor ñu ñëw indi Cheikh hôpital ñëw di indi ay boucan ak mbokku Cheikh yi ngi nii man rakkam laa rakku Cheikh laa ñoo bokk ndey ak baay ñoo ngi nii yoo ngi dañ koo dóor ba gaañ ko moo ngi nii dañ koo dóor ba gaañ moo ngi nii moom ñoo bokk ndey baay dañ koo dóor ba gaañ ko gis ngeen ko nii dañ koo dóor ba gaañ ko ngir politique ñi dañ koo ba gaañ. ñu gën a vigilant gën a surtout Kaolack sax gën a dem ci bureau de vote yi parce que sinon rek du baax li ñu bëgg nii yëpp coow la rek parce que xam nañ ne perte nañ perte nañ gën a vigilant gën a xam ne projet bi euh, day soog di commencé ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant patriote yi nekk Kaolack yëpp taxawul nañ ñu ci côté yëpp vraiment ñu sant ñëpp waaw ça va ça va quand euh, ngi sant yàlla bu baax euh, xew-xew bu fi am mooy école Tafsir Mignane Sarr fii Kaolack Jalañ école euh, la am benn homme de politique bu ñu wax Ousmane Noël nga xam ni yàgg nañu civil la ci ay problème yoo xam ne daf koy attenté dañuy wax kilifa du xeexantoo du tooyantoo bi ñu voté ñu voté depuis huit huit heures neuf heures mooy presque dem euh, fu ñuy wax Sam Khalifa ci euh, côté àll bi la nekk Ndeexox et cetera ñu war a voté si Kaolack ñu leen di jëli dinañ indi suñu oto di sécuriser bureau de vote yi mel ni bi ñu toogee ba quinze heures ci lañ wax euh, nañ ñu ñibbi voilà léegi ci la indi ay mbooloo attaque ñu def ñu lii ñu ñëw ba hôpital bu mag Kaolack mu toppaat ñu foofu encore ba police ñoo mujj yebal renfort pour ñu pour ñoom ñu génne leen ci hôpital ba euh, jotewu na ñoom dara dañoo fekk ñu toog ñu saaga ndey faale wuñu leen man daal damaa jékki-jékki rek gis benn waay bu bu réeree fii ay yàq ñëw yëkkati di dóor ma yëkkat sama loxo ci la ma dóor ma di fracture fii ci lañ ma jël indi ma hôpital moom la ñu àndal ñu ñëw ça yoo xam dañ koo dóor ba gaañ ko moo ngi nii dañ koo dóor ba gaañ ko moo ngi nii maa moom ñoo bokk ndey ak baay dañ koo dóor ba gaañ ko gis ngeen ko nii dañ koo dóor ba gaañ ko ngir politique ñii dañ koo dóor ba gaañ ko waa Ousmane Noël Dieng yi la waa Ousmane nowel Dieng ñoo jàpp Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa dóor ko ba muy voté ji ngir lan Ousmane Sonko la ñoo jàpp ko dem dóor ko ñu jàpp ko dem dóor ko après ñu indi Cheikh hôpital ñoo ngi nii ñu indi Cheikh hôpital ñu ñëw di ko dóor ñu ñëw di indi ay boucan ak mbokku Cheikh yi ñoo ngi nii man rakkam laa rakku Cheikh laa ñoo bokk ndey ak baay ñoo ngi nii. alors ça maa ngi tànn maa ngi maa ngi xaw a bu baax xanaa wax patriote bi rek ñu gën a vigilant gën a surtout Kaolack sax gën a dem ci bureau de vote yi parce que sinon rek bu baax li ñu bëgg nii yëpp coow la rek parce xam nañ ne perte nañ perte nañ fépp nañ gën a vigilant gën a xam ne projet bi day soog di commencé. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant patriote yi nekk Kaolack yëpp taxawu nañu ci côté yëpp vraiment ñu ngi sant ñëpp jërëjëf. waaw ça va ça va quand même euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, xew-xew bu fi am mooy école Tafsir Mignane Sarr fii Kaolack Jalañ école Jalañ euh, la am. benn homme de politique bu ñu wax euh, Ousmane Noël nga xam ni yàgg nañu sibil la ci ay problème yoo xam ne daf koy attenté dañu wax kilifa du xeexantoo du tooyantoo biñ voté ñu ngi voté depuis huit euh, huit heures euh, neuf heures dem fu ñu wax Sam Khalifa ci côté àll bi la nekk Ngeexox et cetera ñu war a voté si Kaolack ñu leen di jëli dina indi suñu oto di sécuriser bureau de vote bi mel ni bi ñu toogee ba 15 heures ci lañ wax euh, nañ ñu ñibbi voilà léegi ci la indi ay mbooloo attaqué yu def ñu lii ñu ñëw ba hôpital bu mag Kaolack ñu toppaat ñu foofu encore ba police ñoo mujj yebal renfort pour ñu pour ñoom ñu génne leen ci hôpital bi euh, jotewu na ñoom dara dañoo fekk ñu toog ñu saaga ndey faale wuñu leen man daal damaa jékki-jékki rek gis benn waay bu réeré fii ay yàq ñëw. yëkkati di dóor ma yëkkat sama dañ koo dóor ba gaañ ko moo ngi nii dañ koo dóor ba gaañ ko moo ngi nii maa moom ñoo bokk dañ koo dóor ba gaañ ko gis ngeen ko nii dañ koo dóor ba gaañ ko ngir politique ñii dañ koo dóor ba gaañ waa Ousmane nowel Dieng yi la waa Ousmane Noël Dieng ñoo jàpp Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa dóor ko ba muy voté ji ngir lan Ousmane Sonko la ñoo jàpp ko dem dóor ko ñu jàpp ko dem dóor ko après ñu indi Cheikh hôpital ñoo ngi nii ñu indi Cheikh hôpital ñu ñëw di ko dóor ñu ñëw indi Cheikh hôpital ñëw di indi ay boucan ak mbokku Cheikh yi ñoo ngi nii man rakkam laa rakku Cheikh laa ñoo bokk ndey ak baay ñoo ngi nii ah. xanaa wax patriote la ñu gën a vigilant gën a sax gën a dem ci bureau de vote yi parce que sinon rek du baax li ñu nii yëpp coow la rek parce xam nañ ne perte nañ perte nañ fépp nañ gën a vigilant après na xam ne projet bi euh, day soog di commencé ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant patriote yi nekk Kaolack yëpp taxawul nañ mi si côté yëpp vraiment ngi sant ñëpp waaw ça va ça va euh, ngi sant yàlla bu baax euh, xew-xew bu fi am mooy école Tafsir Mignane Sarr fii Kaolack Jalañ école Jalañ euh, la am benn homme de politique bu ñu wax Ousmane Noël nga xam ni yàgg nañu civil la ci ay problème yoo xam ne daf koy attenté li wax kilifa du xeexantoo du tooyantoo bi ñu voté ñu ngi voté depuis huit euh, huit heures euh, neuf dem euh, fu ñu wax Sam Khalifa ci côté àll bi la nekk Ngeexox et cetera ñu war a voté si Kaolack ñu leen di jëli dinañ indi suñu di sécuriser bureau de vote yi mel noonu bi ñu toogee ba quinze heures ci lañ wax nañ ñu ñibbi léegi ci la indi ay mbooloo attaqué ñu def ñu lii ñu ñëw ba hôpital bu mag Kaolack mu toppaat ñu foofu encore ba police. ñoo mu jéem a renfort pour ñu pour ñoom ñu génne leen ci hôpital ba euh, jotewoon na ñoom dara dañoo fekk ñu toog ñu saaga ndey faale wuñu leen man daal damaa jékki-jékki rek gis benn waay bu turéeree fii ay yàq ñëw yëkkati di dóor ma yëkkati sama loxo ci la ma dóor ma di fracture fii ci lañ ma jël indi ma hôpital moom tamit mu àndal ñu ñëw ça